bismillahi irrahmani irrahim an ibni umara jëlee nañ ci sayiduna abdullahi doomi sayiduna umar ibnu alxataab yal na yàlla boole leen gërëm qaala mu ne qaala rasulullahi sayiduna rasulullahi sallallahu alayhi wasallam nee na man tashabbaha bi qawmin ku niru nirulu aw nit fa huwa moom minhum ci ñoom la bokk axrajahu abu daawuda abu daawud génnee na ko wa saxahahu wéral ko ibnu xibaan ibnu xibaan xadis ju gàtt boole ci maani lus mënula takk yonentu mi ngi ñaax ñu jéema niru ñu baax ñi ndax boo melul ni ñoom it yàlla yéegee la ci mbaaxam fam leen yéegee ni ko sama borom waxee ci suuratu tuuri alxaqnaa bihim dhurriyatihim te boo jéemee sax yàlla ne maa laa maay téye ci sa loxo walladina jaahadu fiina lanahdiyannahum subulana ba nga agsi yonentu bëgg ñu mel noonu sama borom wax na ko ulaika alladina allahu fa bi hudaahu waykat ba ne tashabbahu in lam takunu mithlahum inna tashabbuha birrijali falaahu kon nag nañ jéem a ñu baax ñi mu ngi ñuy tere it gépp ak tere ñu jee ñuy niru nirulu ñi baaxut moo xam jullit lañ wala duñ jullit bu dee niru nirulu jullit su baaxee ci aada it bon ci pas-pas moo yées ci mbon su niru niru lu ajoo ci pas-pas àdduna tukki dégg naa fan yi benn mbokk ci télé bi suñu mbokk bu ñu wax Iran Ndaw muy wax wax yu nga xam ne dafay wane ne feeti Christmas yi muy feeti euh, Noël yi le yeggul fiñ ko yóbbu wax ci wax yu bari waaye ci biir wax ja am na ay njuumte li xew mooy dafa am yoo xam ne nañ ko bàyyee suñ boroom xam-xam yi nettali lañ ca waxta noppi buñ ca bëggee dugg ci détail mën nañoo dëgg fu ñu warta dëgg te kon ñu surax boroom xam-xam yi luñ wax ci niru niru lu yéeféer yi bi ñuy chara xadis bi dañoo wax ne niru niru lu ñaar la bu xaraam ak bu dagan bu xaraam mooy def lépp loo xam ne dafa jagoo diine yi xéeféer te suñu sharia daganalut ko loolu dañ koy jàppe bàkkaar ci bàkkaar yi gën a mag mën naa sax yóbbu nit ki maanaa yenn ci yooyu mën naa yóbbu ci nit ki ci kéeféer moo xam nit ki daf ko def ngir dëppoog yéeféer yi wala bànneexu bakkanam moo ko ca yóbbu nit ki koo xam ne mu ngi feete feetu xéeféer yi rawatina feet goo xam ne dañ caa wax ne yàlla walla doomi yàlla moo ca juddu muy Christmas muy nowel kooku benn jullit waru koo feete ndax ñi koy feete dañoo gëm ne Isa yàlla la walla Isa doomi yàlla la te loolu ku ko gëm yéeféer nga ñu gëm ne ci la juddu woon ñu koy feete te sax gën naa xóot foofu ndax chrétiens yi ci seen bopp feet gi duutoon seen feet waaye yéeféeri Europe yéeféeri Europe yi daan féete seen yàllaay jant yi kenn ci seen yàlla yooyu moo juddu woon vingt cinq décembre ñu daal di dem daal di dem nag ba mujj adopté ko boole ko ci seen diine christianisme ndax jaxasoo nañu fokk ñu jëlante te li ciy preuve mooy Angleterre ba ci année mille six cent six cent yi dañoo jàppoon ne feetu Noël feetu xërëm la léegi nag jël nañ xërëm boobu def ko Isaa ne mooy yàlla ji juddu woon ci vingt cinq décembre wala vingt quatre décembre te li wér mooy Seydina Isaa alayhi salaam judduwul décembre yàlla sax junj ci alxuraan rutaban janiyan te rutab ca Palestine ci ñi xam tàndarma jamonoy été lay feeñ du nekk jamonoy winter taarix it wane na ne Seydina Isa judduwut décembre kon ay kàcci ak i kéeféer ak sos moo ci boole moo ci bokk moo ci bokk ànd ñoo ci bokk ànd nañ ko moytu boo defee bu dee jullit yaa ngi ci bokkit ba dégg naa sëriñ bi wax ne jullit yi ñoo koy feetee musicien yeeg jaaykatu sàngara yeeg ña cay naan sàngaraak ña cay feete yëpp ay jullit lañ chrétiens yi ñoom ña nga ca seen eglisier loolu yi demeewul noonu dëgg la jullit yaa ngi ci fees dell te waruñ cee bokk dëgg la tey daanaka jullit yi ñooy organiser fecc yeeg lépp ci jamono boobu ak ci budul jamono boobu te waruñ koo def waaye ku ñu ko indil chrétiens yi ñoo ñu ko indil wala les soi-disant chrétiens ñuy jëfandikoo christianisme muy tubaab yi ngir not àdduna bi ñooñu di ay chrétien wala catholique woowe leen loo leen mën a woowee ñooñu indil feet yi tey ji feet yi nga xam ne ay kufri yaat la ñoo fees dell ci suñ dëkk bi pagak yooyu yëpp quinze ak quinze ak yëpp te suñ président yi kenn ñëmul ko ci dindi ndax ci yee ñu xilif ba léegi nag tubaab yi kon ñoo ko fi indi sàngara si am na jamono ku nga daan dégg ñu naan kër ñoom Jean wala kër ñoom nangam ñoom rek nga daan dégg ñoo koy jaay am na sax tur wuñ leen di tudd tuddee waaye gannaaw xeet daf ci aju duñ ko ñemee tudd ñun ba ñooña ñoo daan saña naan sàngara ci mbedd mi jamono yàqu na nag ba julli di fekk leen ci war nañoo dindi loolu waaye loolu yëpp du justifier nag ñu war a feetee Noël gi nga xam ne yéeféer yi chrétiens yi jàpp nañ ni ci la yàlla wala doom yàlla juddu woon na Maryama mim tudd it yàlla fonk ko lool tuddee ko ci alquran aw saar wax ko ne ko tànn na ko mu ne yàlla dafa xool ci jigéen ñi xam ne moom rek mooy koo xam ne bu ko joxe doom ju baay kenn du ko tuumaal muy Mariama moom rek moom mooy koo xam ne suñ ko joxee doom ju amul baay du ko tuumaal moo tax yàlla tànn ko jox ko doom ju amul baay loolu wut noonu ndax Mariama ba tey yahuud yaa ngi koy tuumaal ak yenn ci bindikat kon tuuma gi moom am na yahud yi yal na yàlla rëbbu leen tur wi ñuy woowee isa tur wu ko gën a bon amut ngir wane ne doomi njaalaw la wal iyaadu billahi kon tuuma moom am na tuuma gi it alquran a ko dindi moo tax moom ci biir waxam am na contradiction ndax ci njëlbeen gi mu ne mooy koo xam ne kenn du ko tuumaal ba pare ne bañ ko tuumaalee wax na ci sax wax yoo xam ne xëy na dafay neexal waxtaan rek moo tax mu wax ko waaye paaya naaw ak mairie naaw defe naa ne euh, ba noppee waru ci woon a teg alxuraan a ko wax ndax alxuraan moom yeggul ci paya naaw ak mairie naaw alxuraan moo wane ne Mariama ku baax la wane ne it moo gën ci jigéeni jamonoom waaye gënul ci jigéen ñi nag ndax bu fekkee ne wastafaaka wastafaaki ala nisaa'il aalamina danga koy firee ne moo gën ci jigéen ñi jamono yëpp kon yàlla la mu wax banu israil ne moom moo leen def tafdil ala alaalamina kon da ngay koy firee kon bindeef yëpp te wér na ne yonentu sallallahu alayhi wa sallam ak xeetam bi ñoo gën banu israil kon borom xam-xam yi mbindeefu jamono lañ koy firee ndax booba ñoom ñoo gëmoon yàlla gëm yonantu ya ca ya nekkoon ak ñoom te yàlla daf doon fàttali la mu waxoon ñooñee mariama it alayha salaam dëgg la wax nga dëgg yegg na ci siddiqiyatu waaye nag siddiqiyatu am na njubbaxtan njubbaxtan nga am na ci góor yi xeetu yonantu bi sallallahu alayhi wa ñu ca raw naa mariama muy ñi nga xam ne jot nañ xutbaaniyatul uzma te xam nga ne jigéen du yegg ci xutbaaniyatul uzma ni ko sa sëriñ sama sëriñ waxee ko muy Cheikh Sidi Ahmed Tijaani radiallahu anhu kon mariyama mënta gën ci jigéen yi àdduna yëpp ndax dafa am baat yoo xam ne bu ñëwee ci alquran dañuy dégg firi yonent bi dégg firi raasixoona fil ilmi boo jàngee ilmu usulil fiq danga xam ne sunna dana xaasal alquran dana xaasal aami dana taqyid itlaaqu alquran it te jàng nañ ci sunna yonentu sallallahu alayhi wasallam wane matuk mariama ak matuk asiyatu bintu imran ak matu sayyidatuna khadija ak matuk sayyidatuna eh, fatima jàng nañ tamit ci sunnatu yonantu sallallahu alayhi wa sallam yonantu ne fatimatu te amul sikk ne ci jigéeni xàjjana la bokk kon bu fatima di sangu jigéeni xàjjana moo gën mariama sayyidatuna baax na lool waaye fatimatoo ko gën ndax mooy sayyidatu nisaa ahlil jannati kon nag yooyu ñu bàyyi ci xel lépp loo xam ne dafay tax ñu niroog yéeféer yi moo xam yéeféer yi yahuud la moo xam yéeféer yi nasaraan la su dee niroo gu dellu ci seen jëfandikoo yi diina tere niroo dafay xaram su fekkee niroo ga nag dafay dellu rek ci loo xam ne ñoom danañ ko def waaye ñeneen dana ko def te diine terewut ko boobaa kenn du ko tere am na yoo xam ne nit mën na koo jëfandikoo fekk ay yéeféer koy jëfandikoo ci col waaye duwul ne yéeféer yi ñoo jagoo col googa wala ci jumtuwaay te duwul ne yéeféer yi ñoo jagoo jumtuwaay yooya lu mel ni jëfandikoo gi ñuy jëfandikoo rajo yeeg microphone yeeg yooyu te diina terewut ko kooku kenn du wax ne niroo nirulu guñ tere la ñu ngi guddal yàlla nañu yàlla boole may dégg boole ñu may topp waaye ñi nga xam ne daal nit yi dañ leen di dégg nañ seet lu ñuy wax buñ ko xamee ñu wax ko buñ ko xamul ñu taxaw tey gëstu waxi boroom xam-xam yi ndax amul menn masala lu dul borom xam-xam yi wax nañ ci lañ ca war a wax ba ci yu bees yi boroom xam-xam yuy dund ci jamono wax nañ ci liñ ci war a wax ko am cawarte gëstu danga ca àgg ndax tey ji boroom xam-xam yi def nañu ay conseil ak mbooloo yoo xam ne masail yu bees yi dafa bari bu ko defee kenn dootul nangu joxe ci fatwa boppam rek dañuy jël comité yi nga xam ne ñoo seq loolu borom xam-xam yi nga xam ne seen xam-xam màcc na ci loolu moo xam bu dee wàllu médecine la ñaxam xam médecine borom xam-xam yi lislaam yi nga xam ne peeg nañu xam-xam lislaam yi aju ca loola ñu consulter masala mi consulter it waaqia li ñuy wax fiqhul waaqia xam lëf li lan la soog a àtte yooyu nag ñu ngi fees dell ci àdduna bi te jamono information lañ nekk dañ ci bàyyi xel hada wa sallallahu ala sayidina muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama amin